asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatu mbokki julliti mbokki taalibe yi ci ndigalal sëriñ tuba cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général de mourides yal na fi yàgg lool te wér ci taxawaayu sëriñ moustapha jatara ak mboolem ñi mu àndal di liggéeyal sëriñ tuba cheikh ahmadou bamba ci daaray kaamil niñ koy defee at mu jot nag ngir ànd ak yéen dundal weeru sell wi di weeru koor deneen ànd ak yéen nag ci ay waxtaan yu am solo jëm ci diine ñeel lépp lu jëm ci dund ak doomu aadama sukkandiku ko ci njàngaleem sëriñ tuba cheikh ahmadou bamba xadim rasul waxtaan yooyu nag ñu fas ak woroomi xam-xam yu ràññeeku ci dëkk bu tedd bi di Touba ak ci biir réewum Sénégal gannaaw loolu itam dina ànd ak yéen ci ay jongante ci diggante école yi nekk ci biir dëkk bi ak daaray majalis yi ci ay xam-xam yu fasantikoo ci seenam njàng waxtaan yu am solo yooyu nag ñu war koo tàmbali bët bu set lu ko dalee 15 heures maanaam ñetti waxtu ba tàkkusaan ngeen mën koo topp ci bërëb yu fasantikoo moo xam waaye xarale yi lu ci mel ni réseaux sociaux yi ci rajo yi wala télévision yi rawatina nag page bii di daaray Kamil TV képp ku ci bëgg ay tegtal wala lu gën a leer mën ngaa ci numéro yi